Ah. ñi dëxit hmm. ñi dëxit kilifa nga te ñi am na loo xamante ni waroo koo mel ñi bi nga duggee ci kër gi ba léegi mosuma laa gis nga jël sa jëw dëpp ko ne yaa ngi julli dégg nga gis nga ah, bu nekkee eh, sekk mbalit mii ngay toog sekk mbalit julli wàcc na ko de ndax wiru dof la dégg nga te nag naa la wax dara billaahi dara gënul wir waxi sunu borom waxul leneen de wa maa umiru ila li yaxbudullaah li may wax yaa ma ko gën a xam yow da ngay dof dof lu dong ku la ñuus nga nekku nit. ba waxi ñuus yooyu nag ci nañu ñëw. bilaale ba ma duggee ci kër gi ba tey gisoo ma julli daa lu ma àndal nag man damaa faral di def li may jàpp su ma ko xasee def ba pare waxtu julli wu ñëw suñu borom dama koy jéggal. allahu akbar subhanallah su ma ko xasee diwoo rek malaaka bu ñëw bëri ba jub rek. sama leer ci boppam moo koy song moom moom malaaka mi allahu akbar bu mu jéggal ma julli yow bi ci des mooy Cheikh Mbalit mi nga ne daa wérut yéen a xam yéen ñaar fen yi nga nekk ci dëkk bi ak kaaji ga nekk ci dëkk bi dama baax man sax dama laa lijjanteeti sama néeg bii laay tëdd bu ma yeewoo lekk set ci sa béy woowu ni ci kër gi di ne day togg eh ana jéeg ak géwél ab saraxul sax laay wax nit ñi takki géwél nga takkub saraxul la man xam nga lan la bëgg a wax. chien sec njiit ñi man damaa bëgg nga xam ne yow ak eh, kii eh, kii mi Habib mi ni nga nekkee ñaaw na damaa bëgg nag gis nga kër bu ñu fa nekkee jàmm da caa baax dinaa ko woo léegi mu génn baalu ak ngeen juboo ndax lu mu metti metti yow mii jëkkëram nga tey su ma faatu woon yow lan koy jox ndax. sama araam na ko naan sangara. mu tooguma ak moom boo dee donnuma bëgguma ko. doyuma ko tus. waa waa jërëjëf li mu mel ni ko foog lu ma koy dee sama benn loxo fees na ko. li jërëjëf. li mel ni kaña hélas xanaa ginaar yi nekk ci palaasam bi. kan hélas mi fii kër ak géwél la. ku ne pulaay ak xarak lu ne ngi ci kër gi. man dinaa ñibbi sax ba leen ak seen kër gi. sama kër moom moom fu ma neexee mu doon kërum kërum géwél. bëy na fii xar na fii. man nag am baax dinaa ko woo ngeen juboo te yàlla képp tax. man nag maa la ko ñaan man maa la ko ñaan bu fekkee xarit bi ngay wooteeg wëllëre gi dëgg la ci yow mii ma bëgg nga jubóog moom te yàlla képp tax ndax ni ngeen nekkee ñaaw na. wax ji dem woo ko rek ñu ñëw ma wax ko dama wax dem dem sama yoon. waaw moo gën woo ko rek. Habibi. am di jaay. ndeysaan man arafu naar bi ba léegi dañu ci man. Habibi. am di jaay. dégg nga waaw bii kii bi. mais eh, kaay ma gis. yàlla toog si nii. toogal fii fii laa wax fii toogal foofu. corona contact communautaire. ah en suspect. xam nga dama Aliou Ndiaye ne ñu takk mas dama bëgg wax ak yow ci ful ndax njëg dëxin mi àdduna du neex ba mu dem bàyyi ma àdduna du neex ba moom mii mu dem bàyyi ma te it àdduna du neex ba nga dem bàyyi ma àdduna du neex ba ma dem bàyyi ma dégg nga ma bëgg nag ni nga may xoolee bët bi nga jox jox ma cër jox ma respect boobu nga delloo ko ko ba mu mat sëkk baax na ci de dégg nga na def ko kilifa te xam ne su ma fi nekkul moo fi nekk mm-hmm. waxtaan bi bari na kas bi bari na foo bi bari na mm. waaye Lamine boo xul dëgg wax fen moom waaw te dama bëgg nag ñu ànd ci dëgg bu dee dëgg neex suñu borom ma bëgg nag moom mooy góor nga jox loxo na ko baal ma ak dara lu ñaaw dootu fi xew doxantewu ma ak moom loxo euh, kii ci gàttal uyu ma sa jabar ji wax ko dëgg mbott bañ ñee ko takki mbot daa takki mbott kaña yu ne ko wutil kaña mu wuti kaña doomi géwél ba ne ko takkil mu wuti saraxule musiba dal ko rek. yow xam nga la mooy sa problème sa kanam ne fàllare xar li nga wax laa waxut dama ni na la jox loxo nga ne la baal nga nga nga baal ko loolu laa la wax ngay wax ay waxi joxul ci loxo. kan laa jox eh, eh. jox ko la ko baal jox ko loxo normal ne ko baal ma nag bu fekkee sa borom kër laa. ah nii la ma ko joxe ah. maa ngi ma man mu ñëw naan ma nii. ngir mel ni ko nii la faj. ngir wax wax dafa métti sama boli gi fu mu ne nii damay ragal res gi ko téye dagg. te boobaa dina am problème jox ko loxo ne ko baal naa la cër ma ciy teg baal yaa may dégg waaye gis nga kii damay mën a jàppee nit ma jàppee ko nit mu jàppee ma dox ma jàppee ko dox yaa ngi naan mën naa ko baal ma koy jox loo ko mu may jaay affaire. xanaa doo simple géwél dong damaa bëgg nga régler. Ah, dama lay ñuus boo ma nee. Eh, eh, xaaral xaaral doo ci toll. Eh, mu ne waxati simple géwél de. waa sama ndey. yow dégg nga ma. ah dama lay bay ma rey di. jox ne ko bal ma yow wax. dinaa la ko envoyé whatsapp. ah Habib jërëjëf jërëjëf demoo imbécile la amul whatsapp xamul sax luy loolu day dégg xale yi di jërëjëf. lii nga ne kontaan naa baax a baax. lii nga ne dañuy jubal yàlla na yàlla fay ta dolli sa jongam gis nga yow ku ñàkk fayda mooy yow. ku ñàkk mooy yow ndax yow ku mata di nga mata di weesu woon nga nekk di benn benn ak jigéen ba tax moo lay yëpp gis nga góor kilifa yaa xëy def sa bopp kenn du la ko def boo taxawee naan kilifa laa kilifa laa te saa boo génnee defu taatu neen kenn du la foog. kooku yow ka kan naan taatu neen. man xam ma wax ji li koy gii li ma amoon solo yàlla toppoon ma ci mooy ma jumale sama njaboot te yàlla boole na la ak man da pare nga nekk xaj ma nangu ko lool dama bëgg nga dem jubóole naa leen loolu loolu nekkoon sama mission. dàggu naa la bu subaa. Hmm. damay dellu dëkk ba. ah mu def loolu. damay dellu dëkk ba. njiit ndax man yàlla dama def paab célibataire ma koy muñ mu mitti dinaa la may xaritam bi sooda ah. naa la jox sooda. dina fi ñëw nee na ma nee na ma gannaaw ëllëg dina fi ñëw bu ko defee ma jox xam naa ne fu mu ne nii suuf yi yëngu na si. ay li ma xiin. waaw kay naka yow yëngu ci biir yëngu yow ah yow looy lakkatu ah waaw da ngaa tàngale yow kii ay mooy xaj rek yaa ngi lay la kër des des koy jubóo boo yoree njaboot da nga leen jubóole. waaye man maay fumiste bi man nangu ko ñàkk ko ay du may ëllëg moom dinaa ko am ndax maay jaxase sama njaboot bu ma jógee di jaay seytaane naan damay nax yàlla naan damay aw ma dëgg yëpp